wa ala alihi wa saxaabatihi wa taabiin fattaahu wahaabi ya razzaaqu ya maaliki miftah wahab ya warzuqni bi kulli anas ajib wa salli bi taslimin ala sanadi muhammadin waltahab li faiqan baana mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi ci jamono yu tedd yi di weeru koor di fas yéene ñëw ci comme niñ ko baaxoo rek di amal ay waxtaan ci fani koor gi ñaan suñ boroom nangul suñuy jaam yàlla yépp te làqal na ko fu yàq egut comme niñ ko baaxoo defe rek di dalal ay boroomi xam-xam euh, noonu lañ ko defe tey ñu dalal ku ñuy wax sëriñ Babacar bi tey euh, ñu koy dàkkantele sëriñ Babacar bi tey jaxate moom sëriñ Babacar moom ñu ngi dëkk ndàngal na ñu ngi dëkk ndàngal na euh, nekk it inspecteur d'enseignement ci école yi gouvernement bi Euh, am njàngam euh, mi ngi ko defee ndàngal ma fala defee euh, enseignement élémentaire am bi mu fa jógee it dem Bambey defee fa enseignement moyen jóge fa it dem Diourbel ci lycée Diourbel bu Cheikh Ahmad Bamba muy lycée technique amee fa baccalauréat ginnaaw lool it mu def formation ngir dugg ci euh, njàngale bi mu atmee it mu ngi defee formation ci EFI Louga euh, bi yàlla dogalee it mu def formation ba noppi ñoo affecté ko muy jàngale jàngale moomu fi ñu ko jëkk yóbbu def na fa fukki at ak benn waaye yemut foofu mu dem ci euh, surveillance def na fa def fi def ci juróomi at ginnaaw loolu it ak bëggu xam-xamam ak xam bu xam-xam bu ko xam-xam ñor mu dugg ci concours probatoire mooy yi nga xam ne boo admee da ngay nekk inspecteur mu dal ci dugg ci yàlla defal ko ci tawféex mu jàll defaat yëpp formation ba yàlla dogal mu génn nekk inspecteur euh, fi nga xam ne it jëkk nañ ko faa yóbbu comme mu nekk fa inspecteur def na fa juróomi at bi mu jógee foofa yi yàlla dogal ñu affectewaat ko mu ñëw Bambey 2019 ba léegi yi ñu ay wax ak yéen mi ngi Bambey euh, ni ki noonu it ni nga xam ne noonu la euh, farloo def ay yitte ba góorgóorlu ba am diplôme yi nga xam ne am na ko ci français noonu la góorgóorloo it ba jàng ay téere yu bari ci téere sëriñ bi muy majalis euh, njàngam njàng moomu dem na ci bayla jàng fa téere yi muy tasawudu sixaar mel ni xoqal bukaaru jawharu nafis axiru zaman yooyu yëpp jàng na ko waaye yemul foofu euh, ci dëkk bi nga xam ne fa la dëkk jàng na fa ay téere yu bari lu toll ci ñaar fukki téere jàng na ko fa ci ku ñuy wax sëriñ Omar Jonn téere yooyu daanaka mënuñu lim yépp waaye mën nañ cee lim lu deme ni yaa jumlatan alaa innani ufni ak yeneen ak yeneen kon daal euh, ki ñuy dalal tey mën nañu wax ne sikkiinun du xadday ni la ñaari wet yépp daal def na ci ak farlu bu am solo tomb bi ngay xam ne it moom la bëgg waxtaane muy projet social de Cheikh Ahmadou Bamba pour servir l'humanité maanaam projet bi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ngir jariñ xeet wi maanaam sëriñ bi li mu indi ngir jariñ xeet yi loolu nag la koo séddale ci ay tomb tomb bu jëkk bi danañu dikkal ci kan mooy sëriñ bi ak li nga xam ne moo ko tax na jóg beneen tomb ñaareel bi dana wax ci sëriñ bi ak islaam ak ay pas ak yoon walla pexe yi nga xam ne sëriñ bi teg na ko ngir jariñ euh, xeet wi danañu dikkal ci ci mag ñi mag ñi nga xam ne sëriñ bi yar na leen benn tomb bi dañ leen ci seeni melaw kon yooyu yëpp bu ñu ko bokk bokkee déglu sëriñ Babacar euh, yaakaar na danañ dañ ci jële jàng lu am solo kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ko taw fi yàq li nga xam ne moom la indi mu jariñ sëñ Ba bismillah

di invité ay conférenciers à chaque fois wala ay borom xam-xam ngir ñu tasaare diine mën laa drété ndax boo dee wax si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul day wax ne wa tarkuna kaziba yaa ixwaani afdalu min tilaawati suñu bàyyi naa la yéen mbokk moo gën ci ñu alxuraan ak jëfe ko su ma seexataa li ahlil baari xayrun jihaadi fi kufaar topp laa biir boo dem jàng ni moo gën fital jaar ak noonu yàlla kazaka zikril mawti afdal lana min alxiyaami fi layaali zamana naka noonu fàttaliku dee moo gën nga julli guddi àdduna yépp te julli guddi bari njariñ lool ndax inte lu ñul xiyaami fii layaali takun azima shani dal baari soo saxalee julli ci guddi da nga nekk aji màgg ngir fa suñu borom waaye béy bi ci soof rek laay jël muy laabirante ni ñuy laabirante ci wàllu xam-xam dafa am solo ndax naka jekk islam noonu lay doxe kon suñu fàmm jërëjëf invitation kon dañuy tàmbalee suñ koñ bu njëkk rek dugg ci waxtaan bi muy koñ nga xam ne ci la xam ne kan moo Sëriñ Tuubaa xam ne kan moo Sëriñ Tuubaa rek boo ko waxee nopp yëpp waaye dañ koy tënk rek suñ kenn kalaayu gàttal kon Cheikh euh, dal di ñibbi Tuubaa en 1927 mi ngi feeñ di kilifa bu mag bu waxu diine muy maam Mor Anta Sali ak soxna su tedd suñu wax maam Jaara Buso ñu koy wax Jaaratu Mboor dëkkaale suñu borom mi ngi feeñ Mbàkke ba wax yow ci kibaar waajur woowu nga xam ne fa la jànge alxuraan waaye bii rek waajuram di dund mi ngi nekk di jàngale alxuraan ci wetam yëngalul dara maanaam daanaka ba 1883 ci loolu la nekk bi waajuram génne ab na itam moo yor daara ja di taxaw taalibe waaye ak farlu ci bëgg yam islaam ak di liggéey ñi wut ngërëmu rasul ak islaam ak ngërëmul suñu borom tax na en 1888 muy en Washashi la jot garaatu xaadimu rasul washhad bi kawni ama abdallahi xadima abdallahi yaa ilahi nee ak moom la suñu borom ne ko seeraloo ne ko nekk na jàmm yàlla bi liggéeyal jàmm yàlla tànn keroog la tudd xaadimu rasul waaye en 1889 mbooloo mi nag ne ko dal maanaam daara ji fees del del del del lan moo waral loolu fekk na moom daa war àdduna gannaaw ne dana suñu borom rek dara ñu dul suñu borom axbalati dunia nga xam wa birtuha wa zaala anu tam neen àdduna ji duwoon na ma bu jëkkoon moom ko ginnaaw soo tënk tënkeeku ndax ku topp àdduna bi laa وبعد عمي حتى ولم أمن لها لكونه دافا ne ba ma ko wane ginnaaw moom àdduna wala ginnaaw di moom xumbeen yi ak eh, xum xumam yi àllam yi foog ne dama koy topp waaye lay jéegu ma ñeel ko nit ngir ak nekkam di kërëg pertaange wa baxdu li axbara wa inni axbaltu lillahi wa aqaani nii waaw ne ginnaaw ba mu xamee ne geesu ne gisuma ko toppaatuma ko mu jóg di ma topp si fekk na ma topp naa suñu borom jublu naa suñu borom ma mucc nag ci ay pexe moom seytaane moom kon sëriñ bi fexe na bëgg àdduna waaye boo demee ci mbir mu mu wan lépp àdduna ginnaaw waaye doomu aadama li muy bari bari ay njariñ nga xam ne boo leen toppee dañ lay indil jafe-jafe noonu leen saytoo ba xam nu mu muccee ci ñoom ndax dégg nga mu naan falaa takun multafitan lil xalqi bal kun faqiran abadan lil bul di nekk na nga nekk euh, bul di nekk di gestu ñeel mbindéef yi waaye li fi nekk mooy na nga nekk aji tumuranke ndax nekk ci dëgg ndax al xaq saabitun wa amal baatin wa ala amal baatin fa fa fa in ala fa zaayiqun saafi ne al xaq saabitun dëgg day sax wa amal baatin wa in ala ne fenn bu kawee fa zaayiqun saafi day naax moo tax mu ne jalastu naas jéggi naa nit ñi bu maa fi ay naas ak nekk ci loxoy nit ñi nit ñi fa lama wasaltu ilaa rabbi naas ba ma eggee ci borom nit ñi aataa nii jox na ma naxu naas njëriña nit ñi ba kafaa ni fegal ma dul naas lor nit ñi kon foofu la sëriñ bi taxaw dëddu na nit ñi soxlawu lu seen ay loxo seen alal jublu borom nit ñi muy suñu borom subhanahu wa taala ne ba ma eggee ci borom nit ñi nag jox na ma njëriñal nit ñi bu fegal ma lor nit ñi kon yàlla rek ko ñoroon li suñ bay jaxat yi wax naan xamal ne yàllaa mat a jëm ku jëm ci moom mat a jëm jëmal ci boom baa nga jëm ci ko la bir ne ca la jëm ku am yàlla am nga ne koo ñàkk-ñàkk lu yàlla jëm gu bir maa ngi noonu na ko xam foofu la sëñ bi taxaw boobu buur yaa ngi fi buuri àdduna yi ak tubaab te sëriñ bi dérangé leen lool waaye mag ñi daje ne tey ñu waxtaan sëriñ bi tegtal ko masla ak nasaraan bii ndax ñu am jàmm moo am jàmm ñu ne ko xaaloon yee irkan ñu ne ko jéngal irkan jéngal sëriñ bind ci bay di bari dama ci tënk tuuti rek mu ne xaaloon yee irkan li alwaadi salaati ni taxu jawansat moom yi ku la ñaa jéng jublu buntu buur yi ndax ma am alal yoo xam ne dana ma doy diirab jamono fa qultu xasbiya rabbi waxtafaytu bihi wala suraaliya xayral ilmi wa diini nee naa leen yàlla doy na ma ne te naa ko du ma doy la xam-xam ak diine wala su arjo wala axsha si waa maliki li àlno jalla yox nii ni ween diin yi ndax ne du ma doyloo kub sans borom ndax doy na te loolu ma ragal kub sans borom ndax doy na ma ci woomalal ma ak musal ma ak aar ma inni ufawidu ahwaali li man ajazu an aari an anfusahum hajru masaakiin yi naka la may yóbboo bëgg alal ci may dëkkaale may aj si fin bi dugg ak ñi nga xam ne seen mbiri bopp lot na ci lot ak miskin miskin mooy ku néew la faqir mooy ku amul dara ñooñu nan laa yógi wéeru sama mbir ñoom te mun seen amuñ mënu seen mbir bopp dara aw kay fa yëpp xasu nii ilaa jiwaari man dóoru raw di shayatiin yi wala naka la muy yóbbu bëgg alal ci may dëkkaale ñi xam ne seen kër yi mooy charni seytaane ya mu ne in kuntu za hasanin aw kuntu za zawatayn daawatu soo xamee ne soxla naa dara wala ma aajo wa dara damay woo borom xayin jëkkëraa ak shim gis nga sëriñ bi ni mu a waye ngir bii di daane daf ko mel ni ku ëppale baat bi xarash ayin ngay wax dikra ak siin muy xaras borom aras laay woo yàlla suñu borom doy na ma ñu ne ñu ne ko sëriñ bi dafa def kon xaalu sax xam jooju bind ci ñaar fukki way waaye mu mujj wala laa soxla daf caa wax ne alhamdulilahi inkaarat sahafatuna idaamatu idaamatu werdi wal askari wal fikari sant naa yàlla dégam sama ndof de mooy saxoo werd ak sikar maanaam tudd yàlla ak fikr fikr mooy toog di xalaat yi yàlla asamaan si suuf si ñax mi gàncax gi yu mel loolu boo ko defee benn wax dalay may jaamu yàlla ak ak egg suñu borom ne foofu laa taxaw jaamu yàlla boobu witte lool mbooloo bi ne ko dann nag bi mu ne ko tubaab bi nag dal di waaye buur yi àdduna yi mu nekk fi nekk di tiit ndax bëgguñu ñàkk seen nguur waaye moromi sëriñ yi xam ne ñu doon woote sëriñ mu ñëw feeñal kenn amul am fiiraange jaase yi tàmbali diggante ak tubaab bi ci gàttal loolu tax ma jóg ba tubaab bi dal di koy defal dal di ko exilé maanaam fexe ba génne ko réew mi le conseil privé moo ko def keroog bi ñu dégloo déclaration le Clerc ak euh, Merlin la ñu ñoom ñëpp ñu ne Sëriñ Tuubaa teg nañ ay tuuma ci koom ci ne moom day bëgg a woti jihaad bakkan kon dañ koy génn réew mi juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ak juróom-ñaari fen ba nga xam ne dem na ba bajj bajj yi taalibe yi def bajj bajj yi taalibe yi def dakk ci réew mi ñu doo ko indiwaat kon daa mel ni loolu politique la ndax boobu murid yi kenn mënatu la téye seen doole bari na donc 1895 ba 1902 ñu yóbbu ko Gabon 1913 1900 1903 ba 1907 ñu yóbbu ko Mauritanie 1907 ba 1912 mu def yéen Jolof 1912 ba 1927 mu def Njaareem mu mel ni kon sëriñ bi dundam gépp jihaar nga dégg mën a haajat min duuriya wal bunyaani li xidmatil muxtaari bil jinaani gàddaay naay samay kër ak sama njaboot ngir liggéey Mustafa ba aljana xusuuri xalat wal ahlu an yi tafaraxat li ma di lisi an woon ma diwu xasiru sama kër tas na teqalik naa ak sama ñoñ ngir tag nga xam ne aw tag gàtt na ci moom kon mu génn dem ci tukkim boobu xaaral ci yow ma sab staamina hachar li xëy na fii chahri safar génn nañ mu bisab gaaw ci weer fukki fan ak juróom ci weeru ngir mën a génn kuñ tànn ka ne nga ba àjjana kon loolu euh, lañ teg sëriñ bi nga xam ne topp gi ko nit ñi topp def ay mbooloo yu bare te kenn mënut a tàggaleeg sëriñ bi moo tax Martin Antoine Arthur Lassalle di ko xam ne tubaab bi moo doon moo moo doon garde sëriñ bi mu nekk en résidence surveillée à Diourbel nga xam ne ñaari at nekk nag 1913 ba 1915 moo nekkoon ak sëriñ bi léegi-léegi mu bëtt sàkket di ko yëndu di ko espionné di xam ci mu mu ne ngir xam ban rapport la def bi ak lan mooy koo kookee moom di ñu wax ne Cheikh Ahmed Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à connaître à expliquer la source et la capacité à forcer la sympathie mu ne Cheikh Ahmadou Bamba mii daal dafa am doole yoo xam ne dama ne ci moom yoo xam ne da koo ëndaale bi mu ñëw jamono doole jooju kenn mënta xam fu mu jógee kenn mënta xam lan lay def ci nit aussi ba tax mu taxaw moom te du bàyyi tey moom du ko bàyyi. la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels nee na ni ko sëy ni ko nit ñi déggale dafa yéeme te mbëggeel ko bëgg. daf leen teqale ak seen sago boo leen dee rey boo leen dee dóor boo leen dee génnam réew jaral leen ko ak loolu mën xaj te loolu du ma ci sori ndax histoire mexe ak Lambaay ci si diggante si Aliou Diouf Lambaay sëñ Momar Maane ak sëñ Babacar Diaye Targam doy na kon lépp leen sëriñ bi mu wax ne il semble qu'il détient un secret divin et une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et ne dafa mel bi yàlla dafa nekk ci moom ak leeru yonent boo xam ne di leer boo xam ne ko doon gis day nuróog leer yi ñu doon gis ci yonent yi ba tax seen ay nit doon leen doon leen topp ci seen ay jamono donc mu dal di gaaw a tubaab bi mu wax ne je sais que les plus injustes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui auraient porté de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporaire mu ne de xam naa ne moom tubaab bay wax de gëm naa ne xam naa ne ñi gën a jubadi te gën a réer mooy ñi nga xam ne dañ ko wutal ay jikko dégg nga muy ay tuumay teg moom di wax ne dafa dafay jihaar di wax ne dafa bëgg nguur ak dafa bëgg alalu àdduna dégg ba tax ñu jël ko teg ko yu fe yóbbu ko fi ñu ko yóbbu yëpp. loolu kon day dëppoo wax jëm naan xurulu wara wara nasara bi kay dihi wa zunnu zununa wa zunnul xurul iblis moo war nasaraane moo war euh, euh, nasaraane ay pexe. iblis iblis mi war mbindéef yi moo war nasaare nasaare ci seen ay pexe ñu njort ay njort te nee njort war la kon noonu la sëñ bi dundee ak tubaab bi ci diggante euh, ak fi jaar yëpp nga xam ne kon loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko tënk ci présentation sëriñ bi waaye lam ci waxal boppam nag daa gën a wóor ndax dafa ne xaabal maqaami an siwa baaxil karim wa ineen wa ineen yi abdul xadimu laa yarin sama maqaama faat na ku dul yàlla suñu borom waaye ab jaam laa buy liggéey di sama liggéey yemul fenn daal di wax ne nasaani minal waral baaxil xadim gis nañ naa suñ tubaab bokk ci moo ko njëkkal ba xam bopp moo ko njëkk waxal boppam dafa ne nasaani nocci nañ ma ci mbindeef kan moo ma nocci albaaxil xadim albaaxi muy aji des ji kay aji ay ay kay aji ji allah mahu mu xamal leen bi am ñaa naka man abdul xadim jaam laa buy liggéey jotewu mag kenn dara yaa may dégg sëñ bay jaxate nag dal di ko gaaral foofu dal di ko wax ne la yàlla def lépp ak mbooleem la muy nar a def bàmbaa nu koy wax si fii ñoo màgg ab rubina fam na xolam bépp dem jébbal ka bind xaras ba nag yarawi fi nun mi ngi ne ay sori mi ngi ne ay sori ab jant lay nuru boo séenee ne lay soriwul te boo ko dee wuti loo dox dox mu toll na la ku soxlawul lëf loolu leeram gi foo mun a jëm am waaye yegg fa muy leere di mbir tëtë na leeram gi ñépp ko séddoo kenn amul bàyyi kee ña dem fa muy leere nag ñoo tuuti ndax kawe na foo fekk as ndaw su toggee ñëpp koy mosandoo jëmmam ji nag tuuti koy mos day ko mos gañe na moo tax ku yeewu wér toggam nga dootu la sax jël rek a lay sax nga xam ni xam ko sax bari na mu ju ñuy bay muy tawit ba mu muus mu boole muus a wéer ak ñor xom yaa gën a diis amul ci sang yi benn sang mooy niru lëf amul bu lay ni lu lëf yàlla yaa ko ne sëriñ bi doo kenn sa mbir yomb muus nga wuroon ku muus lay for ku ñaanam nangu yàlla na muus loolu ko kon sëriñ bi dal di waxal boppam ne dallaahu laa yàlla wala maa wala awliyaa man laa yàlla xuwati wa awliyaa yàlla tekkal na ci man borom xam-xam yi ak yonent yi yàlla may borom pexe yi ak borom kàttan yi foofu sëñ bay ne ko mbàkke ba gaa yi di xuus ak alal boobu mbàkke yaa ngay fay ak a wéy ku yàgg ñëw jox la boppam koo gisul gore waaw mu waxaaraat boppam ne baalu li kul baalu kul mën loo wilaaya kaw ni di xaalisal baraaya aaya feeñ na képp xam ne am na wilaaya xam nga ne man kéemaan naa ñeen mi def yàlla ya waaw kon loolu doy naa yem ci ni sëriñ bi wax ci boppam ci lu mu doon waaye mu waxaat ne man zamani ghayra xadima Mustafa fa inni axdimu bi Mustafa ku njort ne nekk naa lan jëwriñu Rasulullah salaam fekk na maa ngi koy liggéeyal mu gën a tànn axdimu ilaa duxul janna daa yor laa yor bu naa mel mi naa danaa ko liggéeyal bu may tàbbi àjjana àjjana may ak xiwali ak dex yi daal wax ne shuhur yi wa ayyaami ghadan li shawahidi bi anni di kaw nii Abdoulaye waxoo suur ne weer yi ak bis yi seere ëllëg ne man na jaamu yàlla yaa te loolu loolu siiw na kon Serigne Touba daal jaamu yàlla la boo xam ne day liggéeyal jaam bi yàlla tànn fi turam yëpp xaar yoo ko ci dàqal ndax doy na sëkk aw tur ak ay daraja waaye lan mooy mission Cheikh ba suñu borom bindee wax ne wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun bind ma nit ak jinne ak malaaka lu ñu jaam daal di def ab dig ni kullu shay'in haalikun illaa wajhahu lépp lu lu lu sama jëmbi dana arab lépp lu ma sa tooy dana wow kullu man alayha faani sëriñ dafa teel a xam loolu teel a yëg loolu ba tax yonent bi asalaam keroog bi mu reñaane ba suñu borom la ko suñu borom déy bu wa awha ila abdi ma awha joojee nga xam ne moom rek boo ko dégg dafa tax boo demee ci mbiram sëñ Abdoulaye ñu koy leeral ne yonent bi de lépp luy njariñ suñu borom dafa dëxañ ci moom te kenn mënta jariñ ci lent jaaroo ci moom sëriñ Tuubaa teel a xam loolu teel koo nangu waaw baal li kulli man loo wilaaya ana wasilati huwa rasul baal li kulli man loo maqulu ana wasilati huwa rasul ñenn eh, feeñ na ñël képp koo xam ne am nga xel naka ma Cheikh Ahmad Bamba sama wasila mooy rasulullah sallallahu alayhi jël nag Cheikh Ahmad Bamba moom euh, solo ci la mu doon jamono muy jaamu yàlla nga mun def dëppaliku ak sunna mu jël loolu këf ko daal di ne li Moustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatu wala mu ahmadu yéen naa ñi xam ne ñeen na tànn ka loola mooy su sax sa man nag maay ahmadu loolu suñ tubaa déclaré loolu sëñ Tuubaa déclaré mu nangu nag dara jaay yonent ñëpp teel a nangu ndax mu jëyee ci boromam rek la ko suñu borom tegtal rasul alayhi salaam mu ne dalla ala yàlla dalla dalla ni allahu ala muhammadin waxaada ni muhammadin li samadi dalla ni allahu ala xayri wara waxaada ni xayri wara lisil lu ci ne benn maanaam rek ci diggante bi mu jëwee suñu borom mu tegtal ko rasulullah bi borom bi nga xam ne suñ borom mi borom mu tekkee ko rasulullah mi nga ne mooy gën gi mindeef mu nang ko lool waaye ana raama rasulillahi min illahi kaw ni xadimahu abdallahi raama sakku na rasulullahi yonente bi yàlla ba min illahi ci suñu borom kaw nii sama nekk abdallahi jaamu yàlla xadimahu bi koy liggéeyal pour rasulullahi moo tànn sëriñ Tuubaa ci góor ñi sëriñ bi nag jël sunna rasulullah def ko muy ngànnaayam boolewu ko ak dara téye ko téye bu wér kam nag ndax la wax li ixdaami na bi ubbi saatihi yàlla woo ma ngir ma rëggee rasulullaay ngir gu sopp gu ma ko sopp rek wutuma dareen wutuma la du àjjana du sabar du ay may dama koo sopp jëmmam ji laa sopp taani ilaa madina na bi ubbi saatihi yàlla woo na ma ngir ma takk rasulullaay ngir sopp gu ma ko sopp waaw ma sëkk na jagleel ko mahat mahabati al muxtaari saydana hubbil maaniya wal ahlina wal sama bëgg ci rasulullaay bëgg ci lépp du doom du alal du sama ñoñ dam yi wa ahli wa awlaadi fi daawala wa abdal qadim man lo muskaana di sarada sama deret dam yi wa ahli sama deret ak sama ñoñ ak sama njaboot lépp tey naa jot naa sama bopp ci rasulaay mel ni ku ñu ku ñu jàpp ma war ko ma war a jot boppam ma nekk nag di ko roy nag ak sax ci ndigalam ak di ko liggéeyee waaw axsamtu bi axsamtu billah inni li nabi abadan xillan wahibun wa ma abaaw yaa baaw gis naa ci yàlla ne naka ma rasulullaay sama soppere sama xarit la te lu bañ bañ naa lool loolu suñ tubaa déclaré lu suñ abdulaa duna nag murit la engagé te ku jaay lëf te moomatoo ko te te ku képp koo xam ne ni nga aslamtu aslamtu bi aslamtu nafsi joxe naa sama bopp na nga xam ne dangaa joxe sa bopp engagé nga def engagé nag mooy soogu te dootoo dellu ginnaaw waaw noonu nag suñu abdulaa daan leeral ci wàllu njëbbal daañu ci ñëw ci kanam dégg nga kon sëriñ bi nag jël tàgg Rasulullah itam def ko muy dooleem nga xam ne salaat sitta bi mat bi mat sitta taat ibaada maatu saa yi julli juróom benn weer ci moom tag ko juróom benn weer ci moom ànd ak di ko loolu fi des mën yem waaye tagg wooyu mu ko doon tagg nga xam ne dara ju am na ci yàlla ko jaral ne lahu alaya li wajhillahi daynu sanan mus mus mustasanin kulla aamin yow ma yuxtaar nee dama koy damaa koo weeral borom tagg boo xam ne maa ko warloo man waaw bis bu nekk ak bu nekk bis bu ma ko tànnee mu ne ci diggante tagg rasulullahi nag ak julli ci moom bindal ko téere yu bari boo demee ci téere marfa yi bari na muwaahibu jëzbu muqaddimaat midaadi mimiya euh, bari na salaat su laa leen gën a tee bëri nuuru daare ni xidma muraaxib bishri ak yeneen yeeg yeneen mësu ko nga xam ne noonu la topp sunnaam it di ko jëfe jëfe bu ne saa su ne waaw nga xam ne tagg moom la tagg rasulullahi raditu anil mawla wa an xayru xalqihi wa fi manhi jawastu kahbu ba xasaana ne yàlla gërëm na ci man rasulullahi gërëm na ci man tagg rasulullahi moom ci laa dem ba jigi naa kaa ak xasan ñu doon ay tagkat yu mag kahbu xasanu كهبر حسان والبوصيري قد بره إذ كلهم إذ كلهم نور وأسهار nga xam ne këbunu xasaan wala bu sëy xal barxoo iskulum xalboo nuun wa su maanaam dafa ne kaab ak asan ak ak bu sëy ñu mu tagg nañ ci tagg nañu waaye ñun ñu ci tagg ay ay ay leer rek ak ay ay ay waaye moom sëñ Ahmad Bamba taggam doon tagg rasul ne jégg naa ci kaab ak hasan ak bu sëy rek ñoom ñépp nga xam ne ko suñu saaka waxee billaahi yaa mag la nga doon ñoo teggi ñoo séedu teggi cër bu dul wàccal ngamul laggal te teen ni ub nga laami xarnu bi mboolem sahabatu rasul ak mbëri daa tagg rasul mel nga di bay daa tagg rasul xasan da daa daa tagg rasul seem na nga leen ci xarnu bi yaaraw ñi daa janoo rasul ngir yaa liggéey ba am rasul rasul egg lay firi ba def xalifatu rasul kawel nga mboolem xarnu bi yoon wa nga aw baraw mindeef ba def danooy gën gi mindeef mënee su koo xamal mindeef jomb na mboolem bi loolu la ko sëñ mbay ji sëñ sëñ Musaa Ka wax kon kooku tag gam tag rasul lay am na ci way waaye nag lu sëñ Abdoulaye wax dafa ne diggante na rasul lay day doon lu mu xëyee lu mu gonte lu mu gonte rekk la waaye gonte moomee ne ñi xëyeen fanaanee dox yendoo dox ba ñuy fekk na kii bu ne faax waaw hmm? ñu yendoo dox fanaanee dox ne ba ñuy fekk na kii bu ne faax nga xam ne kon da gis ne sëriñ bi maanaam pëstéefam ak dogam moo ko may lépp la mu wax ci téere ba rek ci nëx ju waaw waaw képp koo xam ne euh, jóg na sàkk lu baax altia itte dana ci jot waaye ku fekk sax fa na dugg waaw waaw wan wa man wara al baaba wala jabala xam ne kon pëstéef boobu ak itte jooju si ñu am moo ko may ni mu ci tagg Rasulullaay ci liggéey Rasulullaay kam jërta leeral ndax mooy yoonu géej gi rek bëgg lislaam taxaw lislaam jóg ca kaw tax na mu so juróom-ñetti at na def ko jigéen géej gi yu manqué waaye dundam gépp mën na sax jihaar la waaye li ci gën am solo mooy li nga xamante ni nii wax nañ ko ba mu tàbbee ca gaal nga war a sóobu ca liggéey ba alama ni rahmaanu fi safina bi am na ni xadimu fil madina yàlla xamal na ma ca gaal ba ne man de aji liggéeyal bala madina laa kon liggéey bu ñu nangoo ngi noonu waaw kon ñu gis ne sëriñ bi noonu mu féete yonent bi asalaam ak na mu ko liggéeyale lépp da ko teg ci sunna amul dara sëriñ Tuubaa sos man talabal wusul lil jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli képp ko xam ne yaa ngi sàkku ak egg ñeel aji màgg ja suñ borom na saxal maanaam tënku ci sunna suma islaam waaw nga xam ne ci moom ci Ahmad Bamba ci ay déclaration ak nu mu dundal sunna soosu ba tey daf ko jaral lépp nga dégg mu lay wax ne wa lawla alquran wa sunna wa manaafiul muslimin maa bittu fii dunya laylan waahida su nekkul loolu alquran ak sunna ak njariñ ak jullit bi ma fanaan génn guddi ci àdduna waaw génn guddi neen ma ko fi am moom nga dégg yaa ngi firi naan nuit était le fils d'Adam je ne passerai une seule nuit sur terre bu nekkoon doomu aadama dama fanaan ci àdduna nabi c'est pas ne pas leen gis ma nuróom nit ñi ngeen jàpp ma nit ba ñàkk a fii man waaw je suis le serviteur éternel maay ki nga xam ne damay liggéey Rasulaay faaw et chaque génération aura la certitude que je suis pour elle te dana mel ni jamono bi nga xar bu ne ñoo taxat ma jóg ñoom lañ ma yónni woon déggal ma jooju wax dana mel ni xarnu bu ne téeméeri at yu ne mbooloo yooye dana mel ni ñoo taxal ma jóg ma Cheikh Ahmad Bamba ana kañ la man ak léegi xool mbiram nu muy mel te ba at di tukki noonu lay mel waaw ay yaay ni xat umuus yi sama tey ñu ne gàcce na sama démb loolu la wax kon ñu gis ne tey loolu daf ko leeral ci wayam dafa ne baaraka lii fil harakaati wa sukuun rabbi lazi xalqaadali kun fayakun yàlla barkeel na sama yëngu ak sama daal mooy lan su ma dee dox ngeen may gis may dama ko ñëw ak su ma leen wane ginnaaw gisatu leen ma yàlla ma nga xam ne moo nekkal mu nekk daa ci njaareem saxaar yëngu saxaar la ko arab di wax xifaarun mais baat boobu ñëw ci alxuraan te Sëriñ Tuubaa lépp lu mu ci xasida boo dee ci alxuraan jeex ko fekk ko fa moo tax ba mu bëggee bi jëfandikoo baat bi te baat bi amul ci alxuraan te bëggul jëfandikoo baat bi ñëw ci alxuraan daf ko wutal un nom composé safinatul bari gaal mu toog saxaar yëngu mu toog ci taal bi leen jàngal rek ana loolu lan la li yëngu lu doon ñu ne ko mbàkke xanaa gaal ak saxaara gaal ak mu ne tekk dellu ca mbindam di ñuy waxtaan ak euh, muy bind ba yàgg ana ana ndax yéen a ngi dégg yëngu tey ñu ne ko waaw mbàkke ñu ngi koy dégg ñu demam diir mu ne ndax yëngu ba ña ko dégg ak ña ko fi am sang mando ah ñu ne mbàkke dégg ñu dégg mu ne leen ndax xam na mu nekkoon jugu fa de la mu nekk ñëngu boobee wul ñu jugu ca de daa nekk feneen di ko fa def rek daa wéyal aw yoonam mu ne leen bu ëllëgee su ngeen demee ba gisu leen ma ni ngeen xam ne dem ma fen damaa ne feneen di defal ñooñaa lii ma doon def yéen muy woote ak defar waaw waaw moo tax nag bi taalibe yi ñooy song sëriñ bi nag ba bari lool coow li bari nag ñaar la caa xew tubaab bi ñëw taxaw ba ko yóbbu waaye nag yoon islam feeñ ko nekk rabbi ashabaka bil himmati wala turra bihim bi darsi yaral doo ngay ci himma itte te bu leen yar ci ay dars sëriñ Tuubaa daal di woote daal jëpp ñëw mu ne leen ala man sax ba maa li taalumin fal yartaxil koo xam ne nga ànd ak man pour jàng ak xam lu laxasal wa man araada maa arad naa fal yasir maa xanaa koo xam ne li ma bëgg nga bëgg li ma bañ nga bañ toogal ah yëf yaa ngay bëgg a soppike nag la amal ci ula biir jamono yéen bu ñu ba ba ba ñu demee ba islam am doole ñu war mel ni ku bëgg fay ci ula biir foofu la sëriñ bi yor ci islam tërbiya ba ba jikko yi ñu am kenn ñu am ko fa la ak njëmbal tàmbalee daanaka waaye belle histoire suñ ab Abdoulaye leeral na ko bu baax a baax waaye sëñ Fallou ne keroog bi sëñ Tuubaa waxee lii ñëpp ca mbooloo ma dañu ko bakka ñaanal ñu dem ndax ñu xam-xam doon leen wër ndax boobu réew sax ak jàng di ko di di ko ndamoo waaye suñ sëñ Fallou sëñ Fallou wax la ne ñun ñii ñu néew des ca mbooloo waaye ña fa desoon suñ Tuubaa defar na leen ba dañuy fekk si yam sàkket ñu duñ cay dox dox di ca daw te ñu daan dañu fekk sata la buy bax ñu naan ko te duñu lakk fekk sëb buy tàkk ñu tàbbi ca biir ba sëb bi eh, ba ba yàgg ca te du ndax defar bu sëriñ bi defaral waaw kon nga xam ne eh, ak taalib moo am solo ak taalib moo am solo waaw waaw eh, nga xam ne kon sëriñ bi foofu la jaar te am na kon teg teg yoonu murid kon liggéey baa ngay doog a tàmbali waaw nga xam ne ba tey ci diggante wa rasulullah bi tey rek jaamu yàlla yépp ci foofu la ko teg banaytu taatiya bi tibaahi bi zikri wal hadis wal ijmaahi leeral naa sama jaamu yàlla ci topp sunna ak topp alquran ak hadis ak waxi borom xam-xam yi ci gaj ci dajaloo ci gajaloo jamaa waaw salabtu bil kitaabi wal hadis yi rëkki naa lan laa rëkki ci barkib alquran ak hadis obitu xam ak ragal yàlla as aslaqatal xabis yi gànnaay ak iblis ne nangu naa gànnaay ak iblis waaye lan laa ko nangoo ci alquran ak hadis ak ragal yàlla waaw mu daal wax ne lastu azalu aabidan laahu jalil ilaa matiya bi sunna rasul waaw ndax rajaaxu jannati bilaa taati bi sunatin maa yi xuruuriyaati yaakaar àjjana te jaamoo sa borom nga dëpp nag sunna sama ay wor la yoo dikk na suñ tubaab wax ne ko ne awma awma ah, àjjanaay la àjjanaay la neex def la neex wax neex euh, jëf awma ko am xam ne mooy nga nga wuti ko rajaahu jannati bilaa taati bisoo di may xurur ba gis suñ tubaab ba jaamu ji woo yàlla jéemoo dara sa bopp ci lu suñ tubaab gërëm ndax suñ tubaab def na ci ñu lu ëpp àjjana ndax dañoo war a bokk ëllëg dafa xat waaye kon nit dugg ci Sëriñ Tuubaa ba bool ba sëñ Abdoulaye doon wax la tax ñuy duy bool ba yow ma ëllëg yow ma xeemat akbar ak la ci aju bu ñuy bu ñuy bu ñuy kañ góor yàlla yi ba ëgg Sëriñ Tuubaa la cay xew nga xam ne ñu ko tuddee ñëpp murit yam yi jóg di nattoo yegal di nattoo yegal di nattoo yegal ba mujj ñëpp waxal woon ne ana ki nga xam ne dañ ko tuddee ba tey jugul fu mu toog taalibeem yi ñooy nekk seen aw yiw ak seen ay ay ay ay ay ay xewal tëwa yegal ana kii suñ tubaa ne ku bukk ca jama bay baat booba suñu abdulaat ko wax ne ku ne ku suñ tubaa ne ku bukk ca jama may baat booba féetewoo fenn ëllëg sama gàngal la xam benn njariñ ci mënoo moom baax na sax na suñ suñ tubaa du war la yëngu waaye mu ne rajalaahu xubballaahi max boode rasul safaatul woote bëgg yàlla nag te bañ rasulullah salaam ne ak ndof la ak ay woot ak càggante kon mbir maa ngi léegi nag kon diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi ak mission bi taxan mu jóg ak li mu bëgg ci taalibe yi leer na ñu dem na tuuti ci sëriñ Tuubaa ak islaam sëriñ Tuubaa lan la wax fa bashir zami islaami bi aajilan wa kun muniran deel islaam anta munir na nga bëggal ñuñ islaam ci lu gaaw te nga nekk di leeral islaam bi ci man nii man Cheikh Ahmadou Bamba anta munir yow aji leeral bi waaw moo tax suñu saako leen ko dekkal nga julli yu juróom ba cedd yaa ngi jàpp wóom te fétaloo bañ amee góom yaa julli la waa xarnu bi waaw yaa julli la waa xarnu bi tërbe yi yaa ko yeesalaat sunu si yaa ko dekkalaat te alxuraan yaa ko fulaat yaa dund loo waa xarnu bi sopp jigéen ñi muslimaat ñuy dem góor ñi muxsinaat rek dëkkaayu seeni baat wakkilu dëddu xarnu bi waaw nga xam ne kooku kon islaam def la ci lu rëy rëy rëy waaye xoolal li mu bind ci ay téere ngir leeral islaam te si xaar nga xam ne ñaar fukki buntu juróom benn la waaw ñetti xaaji ne ak saamu diin rabbina al iman wa ma doon jiital islaam wa isaanu antu eh, dem ci gëm yàlla nga antu minu billahi wal wa kutubi haani saalika wa saalika wal yawmil axir wa rusul kiram wal xadri lazi yujil maraam dégg nga dem ci buntu islaam ba juróomi ponk ya ci buntu islaam ba an taabudoo laa ka annoma ba ca jeexital wax ci nga xam ne da ngay jaamu sa borom ba mel ni yaa koy gis te wala boobu bu fekkee amul martam boobu wax boobu nga jaamu yàlla ba mel yàlla lay gis bokk <laughs> waaw dégg nga jël tasawdu suwaar subaan bind ka jawharu nafiis dégg nga téere yépp di jàngale charia jël mu téere mel mooy bu xudus muy philosophie di jàngale wàllu yàlla ak nekkam malaayka yi ak ak nekkam wuteeg suñu borom ak mbindeef yi muy bunt yu baree baree baree bari lépp jëm ci leeral islaam waaw nga xam ne boo jëlee digganteem ak cinq prix ak baataf seere bi ngay jëkk jël baataf seere bi nga gis suñ tubaab taw itam mu kalee man zanna xayrallaahi yorni aw yador fa zaaka fii daari zo katin wado képp koo xam ne nii yaakaar na wala mu njort ay lor ak njariñ dégg nga ci ku dul suñu borom ne kooku borom ak euh, perte la ci ñaari kër yi par borom loro lay doon itam addoon wa nafu min ne laysa min al min al bidaay wa suudaani ne njariñ ak lor ci suñu borom rek la nekk aji yërëme waaye nekkut ñu weex ñi ci nit ñu ñuul ñi addoon wa nafu min al jabaari laysa min al fujaar wal ne njariñ ak lor day nekk ci yàlla miy mbër mi rek yaa jabaar waaye du nekk mukk ci kàccoor yi ak ak ak tànneef yi ñu baax ñi andro naxu minal wahaabi laysa minal adaayi wal ahbaabi ne njariñ ak lor du nekk mukk ci kudul aji may ji mu suñu borom waaye du nekk ci noon yi te du nekk ci ñi la bëgg ki la bëgg mënu laa may jàmm ki la bañ mënu laa xañ jàmm yàlla koy maye ki la ku baax ki mënu laa may jàmm ku bon ki mënu laa xañ jàmm yàlla koy maye ku weex ki mënu laa may jàmm mun laa xañ jàmm ku ñuul ki laa may jàmm bu ñu leen yow itam yàllaa koy maye kon foofu fi la tawhid mën mu jëlaat nga jël digganteem ak juróomi julli yi sëriñ Tuubaa julli julli géej bul dégg mukk sëñ bi naan karaamati yi xattu yodi bi mu naan eh, wal bi ak li yaxul afdala yi sama karaama xattu yedi yi mooy sama bindab loxo ci lu war bi laa xulóor wal xattu li yaxul afdala balóor sama bindab loxo dina ma womatal li gën ca guur di jëm muy xasida yi ba nga foog ne karaama mooy julli géej géej gaynde gañ ko booleel rek bëndu gaak bañ ko yóbbu maa yomb ak ba mu nangee daal wiir wiir rek yooyu de yooyu mbir déedéet yonent nag mujjizaat la ñuy wax muy mooy li yonent daan def doxloo garab bu tal ni guy mujj su buddi ko ki di jéggat euh, dégg nga tënk xam na li su ndox waxloo mbët waxloo kiiwat yooyu mooy mooy mujjizaat wala Musaa la doon def yetam wa suppliku jaan di wax na jaan ya waaye bu dee si Ahmad Bamba euh, nitu yàlla karaama la ñuy wax Sëñ Tuubaa ne sama karaama nekkul yooyu ñuy dégg mu yéeme waaye sama karaama mooy sama bindab loxo ci lu lu war xaside yi ne bindab loxo boobu nag dana wommatal ma lëkkante leen di buur di jëm illa yaa xaala maa ilayhi farra hizbun illahi man adamul bira ilee xaada xaada wa man a ilee jëm ci man maa la xam ne faraadaw na ilee jëm ci moom ñan moo jëm ci moom xisbul illaahi kuréel ak yàlla yàlla ga man adaamul biraa ña saxante baax la gaa yu baax yépp di daw di njëkkante ji yoola yoola loolu daa ñëw buuf ci sama kanam la raxiya waxam raamal wara nay la fadlin muslihin muslihin lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraaru min def yépp daf na njëkkante ay gërëm suñu borom ngëneel yépp takk seen bopp ñëw buuf ci kanam rasulillahi Sëriñ Tuubaa julli na géej julli ba julli géej fi la fi les ma daaw si daaw daaw si daaw sëlmal hmm? julli nga fii ràkk ba géej da ngeen ko suñu saaxee waaye julli googaa Sëriñ Tuubaa expliqué na ko dafa ne fa man yu loqa ñuy fil baaxee raw man lexool bati yi fa li illaahi raw fii kulli aylam ku ma tàbbal ci géej ñi sàkk sama turanke fekk na yàlla wamatal na ma ak tàggat ñeel géej yëpp waaw fas bu bari doole lekk pepp ba suur di bañ ku ko war mu daane la bu ko tàggatee ba mu nooy ab zokke bu mën a daw mën nga war tàggat ko ba mu nooy xale bu a tuuti bu ko tegee ci kaw mu yóbbu fu mu fu ko neex noonu lañ defal Sëñ Tuubaa géej yëpp boo demee gay dañ ko boole nag Sëñ Tuubaa tont na ci faxay suma taxaf ilaa kal ahad yaxaf tamit xaw fi uhu kula am foo fee ragale buur buur bii kenn mu suñ borom lépp lu yàlla duñ tey jaani ñàngur ju rëy bu ko fekkee si kawam la yàlla bu mat jaan ja du la xanaa day day barkeel ci yow rek ba ma ngi tàggoo ak yow noonu lañ jëfal suñu Tuubaa kii kon loolu doy naa bu fekkee ni dañu wax ci digganteem ak asaka suñ Tuubaa musul am poos daawul nangu xaalis duniyaa da koo wanal ginnaaw mësula faale la mu laaw jublu ci yàlla ni ñanaaw wakkil dënnu xarnu bi bëggul garal bëggul médaille bëggul ab tubaab tubaab di jaay jaay ci nag yàlla sa waay gañe na mboolem xarnu bi bëggul am sax bëgg mësula bëgg bëggul dërëm bëggul dërëm xarnu xandeer ginaar xàmmee ko ginaar ku waaru ba bamba doy na waaru ci la yàlla bañ xarnu bi ah bëggul nag gileem nag bëy gileem bëggul xarak fi sa fas ak doom bëggul am sàqum juróom du jaay di ñeenteel xarnu bi mbindeef yëpp a yem fi moom alal yëpp a yem fi moom bañu bëggut du xeeb du yéem moo gën a wute xarnu yi bawol ak ajoor saa ma ki ku ñëw mu jox la sa muur dina des ci xarnu bi ah mbàkke xam ne ko goyaar kon umu kenn ko may sëriñ goyaar xamul ko ci xarnu bi ah wolof gën gënu fi moom naar ba ci ay kii la yoo xam ne noonu la koy comparé mu egg nga xam ne soxna umu mbàkke dafa taaru wan ah? mu jël ko jox ko sëriñ goyaar sëriñ bi waa sax ñu ne kon da gis ne kon sëriñ bi amutan poos daal daal xaaj ko lu lu ko mas a jox addi joxe na ko musta denc dara kooku du génn asaka xaar fa asaka boo jëlee digganteem ak koor waxuma woor da koo waaye masaaliku jinaan mi ngi ko bind ci 45 jours te ba mu koy bind sëñ Mbàkke teg ci wetam xam nga lu mu daan day woor bëccëg bi xam nga lu muy dogee benn tibab cere ak boo xam ndox ñoom ñaar kenn ko ne loolu ngay doge ñu continuer waat seen seen koor ba ba ba 45 jours yi mat ndax téere tasawuf la téere tasawuf la mu lay yar bakkan di jàngale dund ak buur yàlla yi dinañ ci tuuti ci kanam nga xam ne kon kooku koor da koo saxawoon xam njariñal koor lool bi way weeru koor ay téere téere nag ay téere téere téere mooy ko weeru koor nag dëkk jàppee woon ko gan moom jàppale ne gan dëgg-dëgg mooy weeru koor te buy tàggoo day am métti ndax jaamu yàlla gi ñu ko doon jagleel te nag daa ko def ci condition yi méttee métti dem ba da daawut am na mu mu jël xol xobi garab yi di ko yëy di ko muucu ngir dox kooram ci biir tukki bi te Sëriñ Tuubaa mosul xam lu neex ndax suukar sax da ko da daa mujj ba day tibb di ci def du mën a saf ci moom ndax bëgg Rasulaay gi bëgg Rasulaay moo neex ci xol bi ba dara mëntu saf ci moom nu xam xamee suukar bu defee nii mu dee ko ak bant mu xam ne saf na mais mëntu ko xam ci ñam ak tàqamtiku waaw nga jël aj aj ba mu tekki lu lu lu lu ko borom téere boo xam zur man tuhibbu wa in shatan bika daaru wa haana min dunihi zaru aw haaru laa yamna'annaka bu'dun min zaadihi innal muhibba liman yahwa zawaaru naar ba da koo gis dégg sëñ Tuubaa dégg ak bëggam yi Rasulullaay kañ gi muy kañ Rasulullaay tagg yi mu koy tagg julli yi muy julli ci moom rey gi mu koy rey mu ne ko waaye yow doo dem Màkka nag zurma boo demee ci raax yi nii lañ ko def entre guillemets du waxi du waxi Sëriñ Tuubaa mu ngi ko wax sa tiir bi ni may waxee naar baa naar beeg ko laaj zur man tuhibbu siyaare ki nga dëg koo bëgg wa in shakar bi nga daal loolu dafa sooy si kër wa haala min duuri sahlu ay xuur ay xuur ak suuf suy wanne dafa ne ci diggante bi xanaa xam nga suuf suy wanne moo gën a bon géej bi am na suuf soo xam ne da ngay dem rek ba nga ne meng bu dee géej sax dañ la mën a jeex waaye bu suuf si doo neex a jeex mais bu fekkee loolu dafa sa euh, sa kër ak rasul laay bu la tee dem ziar laa naka naka laa naka boo ñu ziar waaw bu mu la tere nga dem siyaare ko yooyu yooyu gàllankoor innal muhibba li man yahwahu ab soppe day ziyaar kam ne sopp na ko Sëriñ Tuubaa ne huwa lazi yéex a gis mi an ziyaaratihi laakin lisaani lahu kal qalbi ah. moo gàllankoor sama yàpp yaram ci ma dem waaye li fi nekk mooy sama làmmiñ ak sama xol du jëkk di ko ziyaar maanaam di ko bëgg rek cofeel goo xam ne amu fu mu yem waaye di ko tagg rek fu ma toll ndax am Cheikh Saliou bu dey bañ koy waa Màkka wax dama ziyaara ñu ne man de doon naa fi jógalu bari dem di ziyaara yi Rasulullah boobu yéen a ngi nelaw waaye léegi Kaaba laa ñëw di ma ziyaar waaw Cheikh Saliou boo ko wax te ñëpp nangu nañ ko kon Sëñ Kaaba ga ak Màkka ñëw na ñibbi sama Tuubaa eh, eh, eh, loolu war ko mën a gëm kon pour wax rek ne Sëriñ Tuubaa ak ni mu demee ci Rasulullah ki wax ne yu bashir euh, euh, ki wax ne euh, bay bàyyi mu xadimaat moom laa doon jëli wa bashir sama gis déedéet wa a runge mais bay ba ci mu la ne moom laa doon na kon jumaa yu ko lislaam xanaa loolu waree lislaam ak dundu lislaam doy na ci muy jumaa yi Tuubaa ak jumaa yi Njaaréem te jumaa yi bañ ko fa diggee suñu Abdou Lahat mais la malaaka yi ñëw sàkk pour defar ko lépp wurus Sëriñ Tuubaa gàntal ndax ñun doomu aadama ñu murid yi nen jinne yi gëm yàlla gëm sëñ bi fekk nañ ko laaj ko ko pour def lépp wurus sëriñ Tuubaa gàttal leen wax ñun moo tax suñu ab laaj ne feeg mbir noonu ko jinne yi bëgg def ak ak wuruñ ak teg suñu laxasaay kon ñaar jumaa yooyu sëriñ Tuubaa dëkk yi mu créé li mu li ay dëkk Daaru Salaam Touba Xuru Mbàkke Njaaréem dëkk yi mu sos yëpp te sose ko lislaam yi ko kër sëriñ Tuubaa yi nga xam ne kon Sëñ Tuubaa moo bari may waaye ñi mu ñi mu defar ci ay nit yàlla nag ñi mu defar ci ay nit yàlla mënee suule na lim ñu as ahlu Mbàkke defar leen ci ay jàmbur mënee suule na lim ba fépp lislaam bi dafa tàkk te ba ci suñu bool gi nga xam ne moo gën a lëndëm xanaa xamoon ne yonent islaam giir ak arab dañoo doy waar moo am wàcc ñoom waaye Sëñ Tuubaa waa bool dañoo doy waar benn waaye nee euh, bawal sëgi diine la sëgi diine bawal bawal gu doy waar gu mu doy waar te Sëñ Tuubaa wàcc bawal defar waa bawal waaye waa Bawol kenn gënu leen kenn gënu ci sëriñ bi kenn ëpp leen ay xewal ci bi kon sëriñ bi dafa lu yéeme muy sañ sañ ci dëkk waxal lépp lislaam bi muy Tuubaa wajay ilaahi maskani Tuubaa abad mislas mi bi xayman abad na def sama dëkk bii muy ajana faaw ba mel ni turam yoo ko tuddee ci barke bi Rasulullah mi nga xam ne nii mooy gën gi mu def maskani salim min al fijaari wa min al ahli bi maa indiyaari na nga na nga musal sama dëkk ci ay kàccoor waaye na nga may sama ñooñ ndox muy daw xoolal yuy way ba ko Sëñ Tuubaa way mat la bu fausé ni ba mu bind mat la làkkab Tuubaa mu koy bind ñu koy tudde làkkab Tuubaa ak ba Tuubaa la Sëñ ne fekk naa fii ci Tuubaa ku seen koy guddi da ngay nay daw ne damaa jommi ndax la bu mu la ndëm fekk naa fii ci Tuubaa kuy si kuy si bet doo ngay dañ lay taxaw naa la may ma ma naan ci si bet bi nga laa mën a may lépp ndax dama sama jur ndax ñàkkam ndox fekk naa fii Tuubaa ku ku mas a gaañu lu gaañu gaañu bëri miti miti dañuy jël am ratak nangam nangam dëbb ko tey ko ca ndax ñàkkam paj ak tumbaaki gu dul jeex sëñ Tuubaa dañu wax ne wa maskani salim minal yi sama dëkk bii na ko musal ci ay kàccoor war na alal ahli bi maa in jaari te nga may sama ñoñ ndox muy daw ay robinet lay wax ay robinet hmm? kon xool tey Tuubaa mi ak forage nga xam sëñ Tuubaa la yàlla nangu ñaanam ajaabani rahmaan xabla alxalqi sabhina xarfan sabhina alfan xasanan bil xaqi suñ tubaa ne yàlla nangu na sama ñaan juróom jëkk ñu muy bind mi def ci mu ne ak ma ko an tajaaloo daaru tuxaa wala ilmi wa diini wa daaru tuxaa xoolal loolu woo naa la yàlla nga defal ma sama dëkk bii mu doon daaraay ragal yàlla daaraay xam-xam daaraay diine ak daaraay yëkkati ko ju di yéegee wajjun wajjunatan li saalikin muridi wajjuna wajjunatan an haatikin maridi wajjannatan li saalikin muridi wajjunatan an haatikin maridi na doon àjjana ñeel murid yi soobu yi murid yi soobu nekk fi ni ma digal ñu nekk am nekk ko fi ñi ko fi nekkee nañ na loolu seen àjjana waaye la doon nag pakk nag na doon pakk défense ci ñi nga xam ne nag dañoo si féttarlu aw ñu fi ma bëgg wa man faxal li kulli haadin muslimi waaw wala wa hajjatan li man bi defin irtadaa wu na doon ajukaay ak umrawukaay ci koo xam ne lompoñ na ku lompoñ wa hujjatan ala muxaalisin xadaa waaye na doon aw lay aw lay pour islaam bu bu ëllëgee na doon layal islam kenn na islam ak si ci man ndax la islam ah, ma nga yem ci rasulullah ba mu wootee li ci des lépp nit ñaa koy jottali adadu rasuli ji mun suma yaa badahuma muhammad sini faxiyaa amma jamiul anbiyaahi wa rasul faqakadun ni ñetti lu fi yaa rajul yonent yi seenam lim ñetti la topp fukk ginnaaw si seen suñ tumrankeel muy ñetti téeméer yonent nag ak anbiyaay muy muy muy ñiñ solo ak ñi nga xam ne dañ yónni ay ay ndaw lañu ak ñi nga xam ne ñoo solo te kenn wax lawu leen téeméer junni lañu ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni waaye rasulullah ci woote ba mu demee ba tey góor yàlla yee wàcc te àdduna bi yaatu na waaye sëñ Tuubaa ne na Tuubaa la doon pakkam lislaam bu ëllëgee kenn du am aw lay ne is woote bi surtout ci man waaw mu dellu wax ne wa maskan nijal maskanan maskanal xufraani wa rusdi wala xirfaani wa ridwaani dëkk bii mu doon dëkkab njëggal xam yàlla ak dëkk dëkkab ngërmaane suñu borom wa daara bi siqin na doon daara joo xam ne nii da daaray euh, daara ixlaas yi daaray sellal lay doon bi wasilqin ak dëggal woo war ak sàmm ak sàmm kenn fi mooy yàlla wa daara sunnatin ak daaray sunna dina sunna Muhammad salaam wa man jam ak daaray mucc min biddaa ci ay biddaa bu kenn am biddaa bu fa kenn jëf lu lu lu yeltu daawul jëf xoolal ñuy wax wajaal hu dax ba maskan maskan a taxalu mi wa mawdihi wa mawdihi al fikrati wa tafahumi mu ne ko na nga def nag ndax dañ faaw mu doon daaray xam-xam moo tax suñu mutalaa moo suñu mutaxaa moo dégg ñoom ñëpp def nañ lu ñu mën ci Touba daaray kam si iblaat créé woon suñ saali ñu ubbi daara yi mu ne gaañ xel kom jokki ak njurul ak euh, euh, euh, dëkk ba beneen dëkk ba yépp ay daaray boy suñ mutaxaa moom di wër àdduna bi defar xaaru kenn xam na ne moom fi du ko fekk muy wër àdduna yi defar waaye dégg nga suñ mutaxaa bi ñëwee ni mu def université bi mu créé waaw mu ne kon na nga def sama kër yi faaw mu doon kër ak xam-xam wa wa ma daal wa ma dexal fikra na doon béréb bëpp bu ñuy fikre di xalaat yàlla wa tafawu mi akub dégg di mën a dégg yàlla xam yàlla waaw mu ne wajaal hu ahban maskana tibaayi li sootu laa maskana tibaayi na nga ko def faw mu doon kër ak topp yàlla dëppale ko ak sunu nag déet na kër ak topp topp bi daal bu mu ko doon bu mu ko doon de waaw wajal hu yaa rabbi ahaba maskani fii adna lakka walil maajani na nga def yow yàlla sama kër sama yow yàlla suñu borom dëkk sama kër gi di Tuubaa mu gën a bokk dëkk yi gën a fii adna ci suñu suuf yi lakka ñeel waaw waaw suuf sa suuf yi suuf yëpp yi nga moom na na la suñ suuf si gënal Tuubaa na la ci gënal sama dëkk bii Tuubaa waaw te na na na na doon muccukaay la ci bépp gàllankoor ak ay musiba waaw wajjub laa la xayra mina bihaati asitek fak fiha ani afaati na nga bijj nag ay xéewal ay ay ay ay ay ay euh, aw yiw ci ñetti juróom-benn xibla yi penku saw bët gànnaar bët kajoor kaw suuf na fépp di baj ay xewal moo tax Touba des na tuuti comme Medina lay mel waa Màkka dañoo toog lépp lañ fekk si jaay jënd rek Touba foofu la jëm te egg na fa sax waaw waaw mu ne kon wa kasiral xayraati wa kasiral xayraati haazal baladi wa risqahu wa risqahu wa takfi annaka di na nga bari nag aw yiw ci béréb bii Tuubaa sama pàkk bii war taxoo ak wërsëg ak wërsëg nag te nga fekk fi bépp coono la fi coono yëpp jóg moo tax ñooy dëkk ba boo fa dëkkee moo la waral sa àjjana sa sa jaamu sa sa sa sa sa sa taraanga sa ñaq waaye nag war daa toog bañ a def de suñu Tuubaa bëggul yaafus yooyu sax man na ko faral di wax ndax gaar yi bëggul yomb waaw wartus wartus bital fii jamaatan tuqim assalawaatal xamsa daman yaakiin waaw wartus bital na nga fi saxal nag fii ci moom dëkk bii jamaatum ay mbooloo yoo xam ne dañuy sax dañuy taxawal salawaatul xamsa waxtu juróom daa ban faaw na yaa xakim yow aji xereñ ji xoolal lii nga xam ne kon suñu Tuubaa moo mën a ñaan waaye suñu Tuubaa moo fonk lii fi la bëgg diina mën a yem lii mu créé ci Tuubaa lépp fi la bëgg diina mën a yem waaw Sëriñ Tuubaa nag def nag ay déclaration yu ama am solo nag waaw ci wax fan lay jaara nit ba defar ko sëñ Abdoulaye moo noonu Sëriñ Tuubaa day ñett ko ma sa ñor tuubaa taalibe yi ak alxuraan tuubaa lu mu ci biir yasu rajo li tuubaa wax bi di waxi nii rabbi stajib waltukaa mil maan way tuba tuladaa tuubaa la tii liyee liyee waxee naas ko mu yàlla nga xam ne ca wala xam ne karam naa yooyu yëpp ñëw na ci waaye li a ñor ku nga sa ñëw moom suñ moom suñ sa diggante ak sa borom wala sa digganteeg moom wala ci sabab lu tax du bëgg sa morom benn murit bëgg ci sa morom amul kenn ko ci xam ne nag nga sa ngëm nga wecc ko ak sa morom amul te sëñ bi bàyyi nee na sëñ Abdoulaye nee la mu def si bes ko pes ko nee su ma ko defal ci taatu garab bi wër garab ga te dee sut fa jóg te nee loola julli ñaar rakk moo gën a jafe waaw mu del wax ne kullu muridun bi yaloosu yasxadu li an li an li annahum min al mu wax mu bépp murid boo xam ne aju na ci man texe na ndax moom dañ koy sorale ak lépp lu ay raru boobaa mu daal di texe li kulli man yéen am na ne na ci man mucc na ci ni tax ñu def na def àllaax fa nax fan jalaba lii xam ne kul fay yi fan jasaba Sëñ Tuubaa nee na yàlla ni aji jëriñ ji jëriñ dama loo xam ne dana ñoddi xolab ku nar a jariñu mu texe xolab ku ma sopp dana ko ñoddi mu texe te bu ko dee dina ñëw nafaani naa fi nafaan jazaba lii xam ne ku li faay fan ku nar a texe rek njariñ loolu suñ borom yor njariñ dina la ñoo di bu la ñoddee di nga ñëw rafaani raafin rafan xafadaa masaawa taxal ni fan xafadaa yàlla mi ay yëkkat yi yëkkat ni mu yëkkati boo xam ne dana ci suufee képp koo xam ne bañ sama jiitu ku bañ sama jiitu rek da ci suufee faawu sëriñ bu ñuul waaw waaye sëriñ Tuubaa jàngee na tallaahi laysa yanfa'u shaxsa qadaa inda ulul rabsi xayrul hudaa sëriñ Tuubaa ne giñ naa ci yàlla ne du jëriñ as ca mukk bu tàbbee ci bàmmeel lul ak njub ak njub rek koy jëriñ ci bàmmeel moo tax war nañoo góorgóorlu ci jub a topp suñu bakkan man laa zamma mujaahada nafsihi faata inda ulul ramsihi ku taxaw ko rek sa bakkan nee na nga taxe boo duggee ci bàmmeel man faala maa shaa laqiya maa saa ku def la neex dañu la naqari kenn mënu ci dara ah man laa yaxsut nafsahu laa yaqu rabbahu ku bëriwut sa bakkan ba xañ ko li mu doo am ngërëm suñu borom loolu lépp nit ci néew ñu xam daal di xaaj nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko bind muy téere bu mën a jàngale ci diine ak téere bu mën a yar haza in yawma su ijaaba baada muridina dañu inaaba tey de borom ak tontu laa leen ci mbir yi nga xam ne dañu borom ak laaj xat talaboo man awaa ta adduba li at àndama wa sàkka wa jabaa nañu man na seen leen ay way yoo xam ne dama leen ci jàngal naka la ñu amee ay teggin ndax ñoom ñu am ay teggin te ne loolu war waxu fii daari xayri kan fi wax ay mahdasa bi zoangi ndax ne yar mooy gën ñu ndàmbalaal ci ñaari kër yi ak nag te moo gën ca la muy tedde aji tedd ja ndax day tax a jege sa borom day tax a euh, sori sawara day tax a jege àjjana day tax a am way ci sibir ak maas waaw daa mel ñi may wax waxtu jëri sama tamit xaalibu <laughs> kon xanaa fa kul ma xala bi ñi faa yi xëy na ko si si anaa yi lépp lu ñu doy mu gën lu bari àll ak ah, di sant yàlla bu baax tey ñaan suñu borom liñ ci yéete yëngu ak ñu dégloo euh, ñëpp suñu borom defal tawfeex bañ day ci ngërëmal sëriñ bi tey jotaay bay jot bii jotaay bay jot bi amoon nañ ñu ne thème bi jeex ndax euh, li ma ci développé bari na te dugguma sax sama waaj bu baax suñ bay waaye daa ni taxaw taxaw bi ma ñu xaw a jett xam naa jegam sax eh, waxtaan enregistrement suñu leen ñu ndax ñu mën koo jeexal nga xam ne ku ñu di ñu fekk di mën cee jël sa wàll waaye nag ah, sant yàlla rek di ñaan sama ba gën ñu defal tawfiq asalaamaaleykum eh, ñu ngi lay sant bu baax sëriñ Babacar Bitté eh, ci waxtaan wi la defal nañ ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan sunu borom wér la yokk sa xam-xam aar ak fi ñu ko yóbbu yëpp ak ni ñu ko daan toppee ni ñu ko daan rajoo ba indi ci benn tubaab boo xam ne moom lañ ko daan moom lañ ko doon booleel nga xam nga def ko daan bett waxtu wu nekk ba mujj def ci moom ab rapport seereel ko ci lan koy seereel yooyu yëpp ñëw nga ci euh, bi nga ñëwee ci li nga xam ne moo ko fi indi muy mission bu sell ba loolu it daf koo bind moom sëriñ bi wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo sàkku ci yàlla mu nekk ab liggéeykatam muy raam rasulullahi min ilaahi kaw nii xadimahu wa abdallahi ah, ñëw ngi ci solos dem gi mu demoon ci géej gi maanaam solos liggéey gi ñu doon liggéeyal bi ak pexe yi ñu ci tegal ngir jàllale ko ndax yonent bi dafa wax ne defar benn nit rek moo gën àdduna ak li ci bëri loolu nag sëriñ bi daf koo dégg euh, ñëw nga it ci li euh, nga xam ne noonu leen daan digale ay taalibeen ñu sax ci sunna ndax buñ ciy jël misaal rek mel ni sëriñ Daaru Xasan noonu na ko saxal ci sunna danga dem ba li yi wax nga di ko dégg foofu sëñ Daaru Asan eggal na ba ci li nga xam ne noonu la daan tarbiya ay nitam nga xam ne tarbiya nag bu ñu ko waxee sama classe bi ñu bari dañ ciy juum dañuy jàpp na rek euh, tarbiya nit ki ba bis jot nga jox ko ne ko demal am nga ngërëm waaye sëriñ bi moom tarbiya wax yàlla daan def tarbiya wax yàlla daan def muy daf lay tarbiya ba raxas la ba nga set ba mbooleem jikko yu ñaaw yi nga xam ne yëpp day nekk ci nit te mu jafee dindi lool mu dindi ko ci yow ba mu set ne la demal am nga ngërëmal yàlla kon daal euh, yaakaar naa li nga bëgg na indi yëpp indi nga ko ci waxtaan wi kon ñi ngi lay sant bu baax a baax baax di la wax ne yàlla la suñu borom fay te làqal la ko fu yàq yëgut kàddu yi nag ñu ngi koy wax ci turu imaam muy sant la bu baax baax baax di ñaan suñu borom sàmm la aar la euh, li nga xam ne it moom lañuy séentu ci waxtaan bi yépp def nga ko ba mu mag kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom fay la bu baax li nga bëgg yaa ko xam yàlla na suñu borom def ko ci nu kawe sa jor barkeb sëriñ bu baax kon ñi ngi xam ne ni waxtaan yi képp koo xam ne bëgg na koo déglu na dem ci Touba Monde bi online ak site online ak Nexe vision ak euh, groupe WhatsApp yi bu jumaan ñi ngi xam ne samedi bii di ñëw insha allah ni ñu ko defoon dañ leen koy defaat muy samedi bii di ñëw am na waxtaan buy amaat kon ñu ngi teg fii di ñaan euh, jéegu yëpp yàlla na suñu borom soppi ko ay te def ko ci misaaru xasanaatinaa ci barkeb sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah masha allah عليك بغير